الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم بك جلدي gannaaw buñ sante yàlla tabaraka wa taala ci xiiwal ñu jox def nañu ñu doon ay jullit mu yónni ci ñun ngeen di bindee di sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa mu jox ñu li gën ci téere yi muy quraanul karim bi nga xam ne ci moom rek la ci yàlla wax ne kenn ku laabut waru ko laal soo yorul njàpp waruloo ko laal boo àndi ak sobe waruloo ko laal kon loola buy tegtale dara la muy tegtale mooy yàlla bëgg nañu ñun jox nañu cër ñun waaye ndax ñun mbëggeelu yàlla jëm ci ñun ak cërelu yàlla jëm ci ñun ndax ñun mérité woo nañu ko wala déet su boobaa kon su fekkee ne mérité woo nañu ko daañu mérito résultat bi nag diggante cër bi ñu yàlla cërale ba wax ñu ne radiyallahu anhum wa radu anhu kon su fekkee ne mérito wuñu ko résultat bi ci war a ñëw itam ci ginnaawam ñu xool ana lan moo ñu ci duggal wala ana lan moo ñu ci yóbbu bokk yi mu mel ni ajuma bi passé ñu ngi ubbee woon xutba bi ci xaj màkka ak bi nga xam ne benn semaine moo ci des xujjaaj baytullahi alxaram yu war a jóge Sénégal jóge fii ngir dem Makka ñu amoon ci muujaz leçon boo xam ne dañ koo tënkoon ngir lan nit ki xam lan mooy jàmm yàlla boobu nit ki xam taklif boobu lan la nit ki xam lan mu tax yàlla jox ko ko may ko ko ba noppi ne ko benn yoon ci sa dund ndax mënoon na ko def comme julli muy juróomi yoon ci bés bi juróomi yoon ci bés bi yàlla mënoon na ko sant jaam bi ne boo ko deful nga am bàkkaar moom aj comme ni ñuy amee bàkkaar ci julli juróomi axa kañ su neexoon yàlla mu ne juróom yoon ngeen war a aj néegu yàlla bi ci bis bi comme noonu itam lan mooy xew daañu ko jéem ba def ko jéem ko ba man ko ku ko mënul nga jéem dem dëkki foofa ci makkal mukarrama pour juróom waxtu waxtu bu ne nga mën a ak néegu yàlla bi juróomi yoon waaye yërmande yàlla defu ko par weer defu ko par six mois mu def ko par at defu ko par at ba noppi mu ne dinaa leen ko organiser par at waaye farata lay doon ci yéen kenn ku ci nekk benn yoon ci dundam su fekkee ne 30 ans nga am benn yoon moo ci farata bu dee 100 ans nga am itam benn yoon la ci farata bu dee itam deux cents ans nga am wala trois cents ans nga am mu ne benn yoon moo ci farata in dalla ala cheyin fa innama yadullu ala anna allaha tabaraka wa taala rahimul ibad su fekkee am na lu muy tegtale moo di ne yàlla kon ku yërëm jaam yi la waaye ku leen bëgg la lan moo yokk mbëggal gi nag mu am ko mel ni ñoom mu am ko mel ni ñoom mu am ku mel ni ñoom mu am ku mel ni ci juddu am ndey ak baay mu am ku mel ni ñoom nekk nit comme ñoom mu am ku mel ni ñoom ci koo xam ne moom rek la yàlla yónni si gënale ko ci ndoomi aadama yëpp muy sayyiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk yi mu mel ni kon buñ doon tënkaat ak makka dañuy wax ne nit ki bu jógee madinatul munawwara ba dugg makkal mukarrama wareef ya tàmbali na la nga xam ne mooy ginnaaw madin makka te mooy madinatu munawara mazaraat ya ziyaaratu sayiduna wa habibuna wa azimuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu ñu ko nuyoo yooyu yëpp bu rombee nga dugg ci aj mii qo sallallahu alayhi wa sallam ci mii ba ci zul xulayfa ci abyaar ali foofee ngay julli sa ñaar raka pour tab bi ci aj ñaar raka ngay julli pour tàbbi ci aj boole ko ak yéene ngir tàbbi ci aj boole ko ak yéene ci ñetti aj yi am ifraat ak xiraat ak tamato bii xajtu du ifraat moo di ne benn bennal aj aj ba noppi nga soog a dem umra ji bii xiraan mu nga boole xaj ak umra bi tamato mooy nga jiital umra soog a dem xaj màkka yii yëpp nag mu ne boo si jël nag baax na nga xool nag bul fàtte mukk loo ko duggee woon yaa ngi ko duggee woon ñaar rakka kon loolu danañ ko soxla ci biir xutba bi su fekkee ne dem nga makkal mukarrama yaa nga war a tawaaf gannaaw bi nga doxee quatre cent cinquante kilomètres ci biir oto te moom mi nga xam ne moo sos mbir ma sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu ngi ko doxoon yéeg ko war ko dem na ba jamono boo xam ne bi muy dugg ci yoon bi ci hijratu nabawiya booba moom baaraam ba toj na baaraam ba dagg na mu ngay nacc deret mu boole ko ak laqu ak nëbbatu ngir lan mën a raw ay maasam yi nga xam ne mën a raw ay bokkam yi nga xam ne mën a raw ay baayam yi nga xam ne mën a raw ay noonam yi nga xam ne ñoo ko doon préparé pour lor ko mu war fa jóge nag pour dem ma Madinatu Munawwara quatre cent cinquante kilomètres bokk yi yemu fa de nit ki war a dem nag tawaaf néeg ba juróom-ñaari yoon julli safa julli maqaama ibrahim ñaar rakaa encore yan ñaar rakaa yaa nga tàmbali woon xaj ba mu mel ni kon loolee foofee nga xam ne kon yaa ngi boole turu yàlla yaa ngi boole dox yaa ngi boole simmeeku yaa ngi boole watu yaa ngi boole ak dindi lépp lu mën a denc lii nga xam ne mooy sobe ci sa yaram yemoo ca mu ne boo jullee ñaar rakaa bi pare ya nga jullee woon gannaaw fatihatul quran nga jàng qul yaa ayyuhal kaafiruun beneen bi qul wallahu ahad nee na kon noonu nga koy defaate fii ci maqaama ibrahim wa taxrisu min maqaami ibrahima musalla jóge fa nag naan sa zamzam demaat nag daw sa safa ak marwa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawaa xayran fa inna allaha shakirun alim nga war a dugg nag dem safa ak marwa dox ko yitaa nga daw ko axakkañ loolee mooy manasikul xaj nga war a jëm juróom-ñaari yoon nag boo noppee nag nga ñaanaat fa toogaat fa ñaan yàlla ñaanu marwa te mooy ñaanu après daw wala dox safa ak marwa soo jógee foofu nag pare nga bu dee kuy umra la nga wàññi sa kawar bu dee góor nga bu dee jigéen nga nga dagg ci sa karamba kawar ga xadra un mu la lu toll nit ñu dagg ko ci sa kawar bu dee góor nga wàññi kawar ga waaye bu dee xaj màkka yow mii góor nag danga war a wattu wal xalqu ahsan wa akbar wa afdal su fekkee ne loolu pare na nag kon yow yaa ngi war a dem sa hôtel nag simmi yére niw ngir sol yére nit axakkan ba ngay dugg ci miiqa ba ba ngay génn ci miiqa ba ba ngay yéene ci aj ga yaa ngi soloon yére niw xarmal ihram bi nga xam ne moom nga jël ba lépp loo xam ne yaa ngi ko doon sol nga tàmb ko miin ko ñu tere la ko lépp loo miinoon di dagg ay we di yëy ay we ñu tere la ko lépp loo miinoon di fooy ay kawar ñu tere la ko yii yëpp pour lan la ngir yar la ngir nga am teggin ak teey xam ne am na ku la sant te koo koy mu ëpp doole ñëpp yemu fa de mburu soo noppee ci nag nga summi sa yére niiw nga sor sa yére nit nga delluwaat mun na nga war fa def lan gannaaw bi nga xamante dem nga ci àll ba ba aj bi waaj a jeex yow am na loo xamante ne mooy ñetti yi nga xam ne moo lëmb aj muy tawaaful qudum tawaaful ifaada summa tawaaful widaa tawaaful qudum ba ngay dugg màkka pour nuyu ji kaaba ga tawaaful ifaada mooy jour tabaski ba nga war a ñëw pour def ko tawaaful widaa mooy ba lépp pare nga dem tàggu néeg ba nag ñaan yàlla pour dellusiwaat nga delluwaat sa réew mbokk yi bi nga xamante ne dem nga foofa ba noppi yi nga am foofu te yow mi nga xam ne sa aj jeexagut bi ngeen noppee yéen ñëpp dangeen dem mun na pour préparer dem arafat arafat xayru yawmin tuli at aw xayru yawmin tuli at fiihi aw alayhi alchams loo fa ñaan yàlla mu nangu ñu bëgg ci ki nga xam ne nekkul arafat foo mën a nekk ci àdduna nga woor bés boobu ki nga xam ne moo fa nekk du ko woor loo am ci lu baax nga def ko moo xam saraxe moo xam toroxlu ci yàlla moo xam ñaan yàlla jàng alquran ala bi dikrillahi tatmainu alqulub summa afiidu min xaysu afaada annas wastaghfiru llah inna allaha gafurun rahim fa ida afadtum min arafatin fadkuru llaha inda almashari alxaram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli donte yàlla di wax ak nit ki arafat da nga fay dem pour nga defaru boo ko fekkee fekkeewul nag amuloo aj màkk boo demee bi Arafat génn frontière u Arafat toog fa di caaxaan wala def leneen ci ay waxtaan yow bokkuloo ci Arafat sa aj googu yàqu na mënatoo koo jotu lu dul beneen at leneen lu dul Arafat nag mën na mën nañ koo jan ci aj bokk yi mu mel ni kon boo jógee Arafat nga war a dellu nag dem sa tawaaful ifaada gannaaw bi nga sandee sa jamra juróom-ñaari yoon benn jamra bi nga noppee nag nga dem tawaaf tawaaful ifaada nga pare nga dem watu wala nga dem wàññi sa kawar diggante góor ak jigéen nga noppi nañ nga delluwaat fan dem ci hôtel ba summi sa yére yooyu ñu doon wax léegi nag sol sa yére nit nag pour dem war fa nekkaat trois jours wala deux jours fa man taajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi li man ittaqa deux jours baax na trois jours baax na kon moytudiku nga ne deux jours baaxul wala nga ne trois jours moo gën yow daal jëlal li nga tànn nag da def ko li la gënal nga wax ko li la gënal nga def ko waaye bul wax ne bii moo gën bii naka noonu nag boo paree nag bis bu ne ci ñetti fan yi bis bu ne nga dem ca jamra sànni ñetti yoon ci jamra yi jamra bu nekk nga sànni fa juróom-ñaari xeer juróom-ñaari xeer yooyu nag boo noppee nga delluwaat mun na boo amee trois jours nag nga ñibbi aj ga jeex bokk yi lii may aj màkk leneen lu dul lii ci li ñu wax mooy détails yi nga xam ne moo nekk ci biir aj booy dugg fii looy wax booy génn fii looy wax booy def nii looy yéene boo jëmee fii looy pare looy def soo jógee fale looy def détails yooyu moo nekk ci biir aj naka war a mel noo war a sol lu tax nga war a rey lu tax nga war a tur deret lu tax ay détails la yooyu nag ki lay yóbbu wala ànd ak yow boo ko laajee mu wax la ko wala ki nga xam ne mooy ki lay won yoon wi fii ci Sénégal boo ko laajee mu wax la ko kon nag lii mooy aj kenn ku ci nekk yan na yàlla nangul ko ko te mu mu nangul ko ko te ñaar la mu ne booy ñaan pour dugg ci aj bi ñaanal ñaar yi te bu ko foyee na mu yombalal la ko te mu nangul la ko wala boog mu nangul la ko te mu yombal la ko nga xam ne aj mënul am mukk lu dul yàlla moo la ko yombalal kun yàlla ñu ko yàlla yombalal te nangul ñu ko ku mës a dem yal nanga demaat ku mësul dem yal yàlla yóbbu la ku bëgg di dem yal yàlla di la yóbbu te lañ lépp lu ñu fa def yal nañu ko yàlla jéggal bokk yi mu mel ni lislaam bii nga xam ne moo ko ci lii nag du taxaw mukk lu dul ñu indi ci ñetti mbir comme li ñu indee ñetti aj yi ñetti mbir yoo xam ne li fekk nit ki defu ko mënul nekk jullit bu tax ñu ne ki defaroo dem aj mag bu jëkk bi sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa yakmulu imaanu almari xatta yuxiba li axiihi maa yuxibu li nafsihi li nga bëggal sa bopp bëgg ko sa morom sa ngëm yàlla sa nite sa jaamu yàlla sa wóote ci yàlla ne imaan yàlla bi nga gëm ne yàlla nga gëm yonenteem bi nga gëm yonenteem yi yëpp gëm nga leen ne pour mu dëggu pour yàlla nangul la ko il faut que li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa moro benn ñaareel ba mu ne il faut yow ci sa wàllu bopp yow mi nit kii woote woon ne jullit nga pour nga aj makka wala pour nga def yenn yii nga xam ne mooy détail ci yenn yi mu ne il faut nga doon koo xam ne lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tere na la ko nga bàyyi ko lu la sant nga def ko ma ataakumu rasula fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu ma ataakum rasul yàllaay wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu leen àndal def leen ko lépp lu mu leen tere bàyyi leen ko bi maana lu mu leen sant ngeen def ko lu mu leen tere ngeen bàyyi ko amagum leen ñaar ñetteel ba al muslimu man salima al muslimun min lisaanihi wa yadihi wala min yadihi wa lisaanihi jullit ba ñuy wax dafa war a aj màkka jullit bu ñuy wootee ne dafa war a woor jullit bu ñuy wootee dafa war a joxe asaka jullit bi julli juróomi yoon ci bis bi julli juróomi mu ne du mat mukk lu dul man salima al muslimun jullit ñëpp ñu mucc ci sa ayu loxo ak ci sa ayu làmmiñ wala boog nga njëkkee gémmiñ bi ci mooy làmmiñ bi nit ñu mucc ay buy jóge ci sa làmmiñ ak ay buy jóge ci sa loxo bokk yi si jamono bii ñu nekk nii ñu ne dañoo tëj internet bi ngir lan jokkoo bi war a am diggante nit ñi mën koo dog ngir lan ki ñu jàppee ne saay-saay la mu ban a jaarale message am ci yenn kenn yu yi yi nga xam ne mooy réseaux sociaux yi wala boog ki nga xam ne mooy programme am boo xam ne man na lor nguur wala mu lor nit wala mu lor doomi aadama bi wala sax mu lor réew mi maanaam bu mu fa jaar nga xool sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax na ko junni at ci ginnaaw ne yow nit yow jullit nit ñi dañoo war a mucc ay bi jóge ci sa làmmiñ wala ay bi jóge ci sa loxo moo xam message boo bind la moo xam yow juge bi da nga am loo àtte bind ko signé ko sa loxo mu war a indi fitna bu taal dëkk moo xam yow doomi adama bi nekk ci peuple bi ci nit ñi nga wax benn wax boo xam ne rambaaj la namima bu war a mën a jaxase nit ak nit da koo ko bucc ci paakam wala bucc ci fetalam wala bucc ci kurpañam dóor ne du jullit baaxul du nit nit a wut aha su fekkee ne yow li nga bëggal sa bopp bëggaloo ko sa morom doo jullit doo nit jaru ngay aj makka jaru ngay julli ibaadaat dafa am waaye muamalaat dafa am kon kenn ku ci nekk mu wóor ko ne am nga responsabilité bu rëy boo xam ne ñett yi ñu tudd ci aj mënoo koo passé ifraad qiraan tamato ifraad qiraan tamato waaye ñett yi tam mënoo koo romb mukk nga ne da nekk jullit wala déet li nga xam ne moom nga bëgg sa bopp bëggaloo ko sa morom nga ne jullit nga mënul ne sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li mu santaane nga bañ li tere nga bañ nga ne jullit nga jaru nga julli jaru nga dem Makka jaru ko ah kañ jaru ko su fekkee ne nit ñi mënatuñoo mucc ci sa ayu làmmiñ wala sa ayu loxo doo jullit bokkatuloo dañ la war a rey te innama jazaau alladina yuxaaribuuna allaha wa rasulahu an yuqattalu an yusallabu aw tuqataa aydihim wa arjulu min xilaaf aw yunfaw min al ard sadaqa allahu alazim ñi nga xam ne dañuy géer yàlla kan mooy géer yàlla ku dox bay jël géer yàlla aha kañ da ngay jël sayiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee ne kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba sama xeet yëpp danañ dugg aljanna ñu ne ah mu ne ñëpp danañ dugg ñu kontaan mu ne ba mu bañ ñu ne yaa rasulallah kan moo bañ mu ne man ataani daxala aljanna wa man asaani ataani ku ma toppoo man ataani lu ma wax ku ko def man ataani koo xam ne tere naa ko mu bàyyi daxala aljanna wa man asaani ku bañ li ma wa man asaani ku weddi samay wax wa man asaani képp koo xam ne wax naa la defal defoo man asaani képp koo xam ne wax naa la bàyyil bàyyuloo faqat aba bañ na kooku dugg aljanna yal nañ ci yàlla musal mu mel ni kon fi ngeen toll woon fii ci même place di ci wax depuis six mois depuis un an depuis deux ans nañu moytu nañu moytu nañu moytu waaw nañu moytu waaye tey jii àgg nañ foo xam ne est-ce que jarati na sax di ñaan yàlla yërmande damay laajte question est-ce que jarati na ñuy ñaan yàlla yërmande ndax ñu ñëpp kenn ku ci ne xam nga li xew ak ni mu xewee kenn ku ne xam nga ni li doon xew ñun ñoo ko doon xewal ñu bàyyi ko muy dem di dem ba dugg ci guuta te kenn ku ci nekk si ñun ñu nangu responsabilité bi nangu nañ ko wax donte dafa jar seen bàkkan ñu wax ko doonte dañu tëj seen société ñu wax ko. donte dañu tëj seen làmmeñ ñu wax ko donte dañ leen di rey ñu wax ko ne lii moo am mu jëre leen lu ne ñu xañ leen lu ne ci réew mi ñu wax ko ñu lank bañ ba tey jii nag ñu ne woon ah dara du xew dara du xew dara du xew benn bakkan daanu ah dara du xew ñetti ñaari bakkan daanu ah non non dara du xew ñetti bakkan ñeenti bakkan ba juróomi bakkan fu mu jëm na dem juróom fukk na dem téeméer ñu xool kan moo ko def yàllaa ko dogal yàlla dogalu ko yàlla ko dogal zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas li yudiqahum bada alladi amilu laallahum yarjiun kan la ñun la président de la république ba ci suuf les xalif généraux ba ci suuf taalibe yi ba ci suuf les partis politiques ba ci suuf donte ñu ngay kan la ñun yaa bani aadam ñun la yaa bani aadam ñun ñoo tooñ yaa bani aadam ñun ñoo war a tuub jéggalu dellu ci yàlla ay buñ ko defut kon ñu ngi ñaan ñëpp lépp lu war a mën a tax dëkk bi tàkk ku ci man dara bàyyil du ñu ne yàlla defal déedéet yàlla moom buñ koy waxati duñ ko ñaan dañuy waxam moom directement actuellement di ñaan yàlla yàq temps la mbir mi weesu na ba pare dugg ci ndox bul dugg ci teen bi nga tëb bul tëb nga tëb ba dugg ci biir àgg ci biir ndox mi commencé tooy nga ne yàlla bu ma lab ñaana leen ma bu ma lab te yow wax nañ ne bu tëb ci teen bi nga tëb ba dugg ci biir waaye dangay ngay lab waaye da nga war a dee sax ah kañ kon ñun lañu mérito ci diggante ma ataakumu rasula fa xuzu lañu lañ mérito tey jii Sénégal lan la mérité woo kenn ñemewu ko wax waaye ku ne xam na lan la Sénégal mérité tey ci li ñu def yépp ci li ñu wax yépp wax ju bon wax ju salte jëlee ko ci mbedd yi yàlla ne nëbbal leen ma ñu lank bañ yàlla ne bàyyi leen ñu lank bañ noppi leen ñu lank bañ indi leen ma seede ñu lank bañ aha aha fii laa bokk fale laa bokk ku bokk fii baaxul ku bokk fale baaxut alquran ne laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaaun min nisaain asa an yakunna xayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanaabazu bil alqaab bisa al ismu alfusuq bada al iman wa man lam yatub fa ulaika hum zalimuuna fasiquuna kafiruuna mujrimuun ñun la dara xewut kon nag ku ci nekk nag na assumer sa responsabilité ci kaw ba ci suuf ci parti politique yi waaye ci état ndax ñoom ñaar ñi ñooy politiciens yi nga xam ne lépp lu fi xew ñoom la te pourtant mën nañ leen fàttali ne ñoom ñëpp amu ci kenn ko ci am ñeenti soxna ñoom ñëpp amu ci ko ci am ñaar fukki doom ñoom ñëpp amuñu ku ci am bu ma sëkk nga am ko mu lew la damm amut waaye yow sëriñ bi yow imam bi yow xalif général bi yow mi nga xam ne yow la yàlla teg ci kaw suuf nga yar juróom-ñaar fukki téeméeri nit nga yar junne nit di leen di jàngal alquran te laajoo kenn dërëm nga gas ay tool gas ay teen defar ay tool liggéeyloo nit ñi yar seen ruux yar seen yar ak teggin dugal leen ci diine lislaam kenn ku nekk di jaamu yàlla te laajoo kenn dërëm yow yaa ngi toog sa liggéey yépp na ko saax saaxe yàq ko ah kay lii xew dafay yàq liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba lii xew dafay yàq liggéeyu Alxaaji Malik lii xew dafay yàq maam bu maam Ibrahima ña kilifu diine yi yëpp lañ doon liggéey ci Sénégal lii daf koy yàq ndax lan la ñàkk a yar ñàkk a amuñu yar amuñu teggin ci mag ñi ak ci gone yi bu ñuy wax ne xale yi xale yi xale yi ah kañ am na mag ñoo xam ne ay xale la. bu ñuy wax ne xale yaa ngay mag bu fee am na ñoo xam ne ay mag lañ ñoo leen sant pour ñu def ko am na ñoo xamante ne ñoo ci àmb kon fan lañ jëm dëkk bi nag commencé na sàngoo deret te pareegul te noppeegut ku wax ne pare na noppi ne da ngay nax sa bopp kon la ko wax itam dañ lay nax pareegul ah kay kon kenn ku ci nekk na jéem nag responsabilité sa bopp te bul xeeb donte yow benn lay waxal sax mu bàyyi waxal ak moom. keneen dana jóg xool kan la mën a waxal mu wax ak mu noppi su yàggee lépp daal di noppi su la su yàggee lépp daal di am jàmm waaye kantaa nii ngi def nii di dem nii di dem nii bismillah li ñu xas def dañoo jéggi jog gi ndigal bu yàlla ndigal bu sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon duq innaka anta al azizul karim kon ñamal ñamal kon ñun ñëpp nañ indiwaat xel yi fóotaat xol yi nañ koy wooyee dialogue naan dialogue ci diine ji wala dialogue ci nangam nañ njëkk a suñu bopp njëkk a dialogue suñu xel bi bañ a nax suñu xel bañ a suñu bopp bañ a nax suñu réew bañ a suñu askan kenn ku ci nekk xool li nga xam ne boo ko waxee def ko réew mi am jàmm ñu def ko amu ci kenn koo xam ne bëgg nga réew moo xam ne buñ la koy jox sagar lay doon amut su fekkee ne ñi fi ne ci état bu fekkee ne réew mi dem na ba nekk sagar lu ngeen fiy defati su fekkee nañ dañu bëgg a yéeg pour soxla ngóor gi su fekkee ne sagar la lu ngeen koy doyati nit lu mu doyee sagar joxan nit yére boo xam ne dafa futti loxo boo xam yére boo xam ne dafa fënëx nga jox ko yére bu xotteeku yére bu lakk ak nga jox ko yi nga xam ne yére bu ñu defar jaami na ko ba noppi nga jox ko ban lay jël ana ban lay jël xanaa bu bees bi kon réew bi ñu soxla muy réew moo xamante ne yii dana fa nekk te yii nga xam ne mooy yóbbu réew ci kanam lépp taxaw ma bi ci jëkk mooy yàq réew ba téeméeri at mooy xam-xam kenn jàngatu kaay leen jël xale yi kaay leen jël xale yi bu kenn jàngi bu kenn jàngi téye leen xale yi bu kenn jàngi kon xam-xam dee na rendi nañu ko nga xool benn bés ñaari bés bu xale yi jàngut ñaata at la wëññi réew mi ci ginnaaw da wax ne fukki at de jàppal téeméeri at par bis ndax xale yooyu li ñu waroon a xam tey buñ ko liggéeyoon tey te defuñu ko fan lañ jëm kon jàpp ne benn bés bu ñu jàngul am na téeméeri at boo xamante ne yëbbu na réew mi ci ginnaaw wàllu économie ñëw ki nga xam ne mooy yaxanal ba kiy jaay caaf bi ci buntu kër gi ba ki nga xam ne mooy jaay sump sax wala muy jaay soccu sax mënatul dem fet te ci yii lay amee wërsëgam waxuma laak la ca taximaan ba la ca cag-cag ba ka a jàngi pour aj màkka te ñu ngi ci tollu aj màkka bi mënul dem jàngi te ka nga xam ne moo waroon na fóoti ngir loxoom la yaakaar fóot pour ñu fay ko mënul dem ka nga xam ne dafay bale ndeysaan bale mënul dem ñi ñëpp ñu taxawal lépp lan moo ko taxawal du lenn lu dul bëgg nguur bëgg nguur bëgge te li tax nga bëgg ko amul lenn loo xamante ne mën na ko remplacer yii nga xam ne mooy xew amul loo ko mën a remplacer te xamuloo kon nañ indiwaat xel yi xoolaat suñu jëmm xoolaat suñu bopp di ñaan monsieur le président de la république nga xam ne moom la yàlla jox nguur gi tey jii ci Sénégal dañuy wax ne yaay bàyyi ñëpp déedéet doo bàyyi ñëpp waxin na ci làkk tubaab waaye réew mi moom mën nañoo wax ne antal mas'ul yow yaay responsable ci dëkk bi kon lépp loo xam ne war na mën a tax jàmm am ñu lay ñaan ci yar ak teggin ci bëgg la nga sauvé ci bëgg peuple bu ñu sauvé ci bëgg Sénégal mu sauvé lépp lu war a mën a tax jàmm am nga def ko bu ci xool sa bopp bu ci xool nit bu ci déglu kenn nga xool li nga xam ne moo gën nga def ko yéen yi nga xam ne yéen ay opposants yi commençant ci Ousmane Sonko ñu ngi leen di ñaan lépp lu war a mën tax dëkk bi baax lépp lu war a mën tax juboo am ci dëkk bi réew mi naataat réew mi moo nañu moo nañu gënal yéen ñëpp yéen ñaar ñëpp leneen réew mi gënal seen nguur ba ngeen di ami leneen réew mi gënal seen dërëm ba ngeen di ami leen réew mi gënal lépp loo xamante ne yàlla wax na leen ko fii ci kaw suuf te mu ngeen xam ne préparé yéen ñaar ñëpp ne bés dana ñëw ñu suul leen ci biir suuf kenn ku ci nekk nga la yow ak sa borom monsieur le président de la république yow ak soon ko yéen ñaar ñëpp yéen a bokk dëkk ci réew bi man ngeen a wax man ngeen a waxtaan man ngeen a jaloogante man ngeen a waxtaan ba réew mi am jàmm jéem leen ko ngeen def ko balaa 48 heures balaa 48 heures jàmm na am ci dëkk bi balaa altine bu ñu duggee altine jàmm amul ci dëkk bi lu ngeen gis yéen la altine yowmul usnayn al qaadi lenn bii di ñëw su fekkee ne coow la jeexul lépp lu fi ne yéen la balaa altine lépp loo xamante ne bàyyiwu leen ko yéen ñaar kenn lu ko ci nekk yoon jaxal sa loxo yola ma sa loxo xool di dëkk bi moo ma gënal lépp ba ngeen ko deful lu xew yéen la rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar wa adxilna aljannata maa alabrar ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin allahuma rabbi habib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من القانتين واجعلنا من الحافظين توابين التائبين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العلام الغيوب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الحاقدين وانصرنا على القوم المجرمين وانصرنا على القوم الملحدين وانصرنا على القوم المعتدين وانصرنا على القوم المنافقين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل